yow mi jàkkaarloog télé bii di Kifna TV abonneel Da daal di partager suñu vidéo daal di koy aimer Kifna TV moom mi nekk ci suñu kanam nekk ci suñu xol yi ba nekkal ñu fu ñu nekkoon Kifna TV Sénégal. Manam ay lëndëm la yo xam nit ki li muy xam ci moom mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko mu def mu tere ko mu bay ci nonu yit la ñëwee yeneen yo xam ni am na ci ginnaawam ba nga xam julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mënees na ko def du ànd ak njàpp. julli ci yonente bi salaahu alayhi wa dina tax nit ki am mbëggeel ci boromam muy salawaat yi ñuy def ndax dinañ gis ni euh, yu baree bari ñu koy def ci salawaat yi nga xam ni ku ko toogee def ko ci ay jotaay sax day mel ni ku set nga wicc ci bàkkaar maanaam ndax li day demee ci li naa Cheikh Ibrahim di wax Maulana Cheikh Ibrahim Niass لنوره أول الوجود وجودا فهو أصل الأصول والأمجاد maanaam day dépendre day dem ci ni moom yonent bi salaahu alayhi wa sallam lépp lu ñu sos rek ci moom la tàmbalee maanaam mooy tàmbali lépp lu ñuy gis bu ñuy wax al amjad rek mënees na koo firee début maanaam tàmbali sosu nit muy aadam nga xam ni ci dañ koy askanale ci koo xam ne ci yonent bi salaahu alayhi wa sallam la jógee ndax ana minallahi wal muminuuna min nii mën na bokk ci ñoom waaye ñoom ñi nga xam ne yëpp ay yonent lañ mën na leen mën mënees na leen a dugal ci lu iman noonu it lañuy ñuy xamee ni leer bi nga xam ne bu dul woon moom àdduna bi du leeree niñ koy gisee nii day dem ci li ñuy wax ni euh, ndax ku demee ni Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Al Maktoum day wax ni dañuy faral naan nit ñi bépp jamono boo xam ni toog nañ ci ay barab lu tolloog ab lim rek toll ci ngir sosal yonente bi ay waxtaan walla waxal ko lu rafet ci moom wala gàmm wala nu mënti demee yonente bi na ca teew léegi nag bu ñu xoolee lii gàmmandoo ci àdduna bi yépp yonente bi teewandoo ci waxtu woowu noonu am ci xel yoo xam ne nanguwuñ ko moom mu ni ndax jant bi dañoo wedd ni ci yonent bi salaahu salaam lay jëlee reer leer te jant bi leer bi muy am yonent bi salaahu salaam moo koy jox ak jant bi dëkk yi muy leeral doo yëpp à fois donc ci loolu lañuy gisee ni salawaat yeeg yi ñu def yëpp ak njàngale yi ñu ci am yëpp mooy li li ñuy wax ci muxadamatul am dah la antal lazi onteeta xidman nubbu watan wa aadamu baynal maa dañoo boole yi nga xam ne yëpp yonent yi dañ ko am maanaam may yi mu am moom dañuy jël ku nekk jox kenn jël beneen jox keneen jël beneen jox waaye moom bi mu ñëwee ñu dajale ñu dajaleendoo yëpp jox ko am na sëñ Tuubaa di wax euh, walihab jamal lazi tafaraxa baynal xiyaari karaman wal tafruxa walihab jamal lazi tafaraxa baynal xiyaari karaman wal tafruxa dinañ gis alxuraan di tuddee xiyaar ñenn ci ñi nga xam ne ay yonent lañ yi nga xam ne yëpp amoon nañ ko ci ay mbaax ñu leen koy nawloo ak yeneen yu demee yu demee noonu yëpp ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ ko jëlee kenn ku nekk ñu jël benn jox la te yonent bi bi mu ñëwee sallallahu alayhi wa sallam ñu boolee loolu yëpp jox ko kon dafa mel ni dafa am loo xam ni da ko wala signal boo xam ni da doon def ñi nga xam ni ñooy waa àdduna ngir leeral leen ni am na kenn koo xam ni mi ngi ñëw te bu ñëwee léppam ci yàlla lay dellu subhaanahu wa taala moom la ñuy wax ci jawharu kamal salaatan tuharifu na biha maanaam koo xam ni bu ñëwee léppam day nekk lépp yàlla subhaanahu wa lépp yàlla yit nekk léppam maanaam li ñor yàllaa ko ñor lépp loo xam ni ñorul yàlla subhaanahu wa taala mu wan loolu ginnaaw noonu it lay demee képp koo xam ni ànd nag moom ci li muy dund muy iman islam ihsan ihsan gi it buñ koy wax dañuy wax ni huwa an ta'budallaha ka annaka taraahu fa in lam takun fa innahu yaraaka mënees na ko firee li ñuy waxit tasawuf comme niñ koy firee ci jamono ji waaye ak lu ci mën a xew mooy ihsaan ihsaan gi it tur bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam tudd ko ci li ñenn ñi wax waaye lu mu ci mënti doon maanaa yeeg addillaat yeeg yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam junjunu hmm. ndax bu fekkee tarkul bidaa la ñuy wax loolu moom ku ne xam na ne bidaa warees na kaa moytu charte la ci ihsaan bi ñuy wax tasawuf beneen bi ci topp toppit mooy nit ki di wéet wéetal yàlla subhanahu wa wéet gi it am na ci ñoo xam ni bokkuñu ci maanaam ay sage lañ ci mooy ki nga xam ni mooy ci ki nga xam ni day jàngale ki nga xam ni mooy imam ki nga xam ni bu wutee ci këram kenn du ko wuutu ci këram kooku it onze la boobu noonu bokku ci beneen bi ci topp xiyaamul lay moom it charte la ci ñi nga xam ni dañuy bokk ci ihsaan bi nga xam ni mooy rafetal ngëmum nit ki moom la ñuy wax tasawuf rek bu anta abdullah ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa am na ci euh, li nga parce que bu dee loolu dali bi mooy abdullah ibn umar yonent bi sallallahu alayhi wa dafa doon wax ni waa ji doon na gën a baax bu fekkoon day taxaw guddi gi kon loolu benn la ci charte yi nga xam ni al ihsaan bi ñuy wax day rafetal lu gëm am na ak yeneen ak yeneen yoo xam ni yépp dafa bokk ci li ñuy wax al ihsaan nga xam ni ginnaaw islam bi nga xam ni mooy ànd ak tawxid iman bi nga xam ni mooy ànd ak fiq dafa am ihsaan boo xam ni mooy ànd ak tasawuf subhanaka laa ilma lana illa ma alamtana innaka anta samiul alim بسم الله قر الميامين والأبتال المقاور الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أما بعد فقد كنا في رمضان كالملائكة أتحنا الله وأتحنا رسول الله فصمنا وقمنا وقرأنا القرآن وسمعنا فيه كلام الله العظيم وامتنحنا عن التحامنا وشرابنا وسهواتنا تائهين اتقاء وجه الله واتقاء مرضات الله واليوم يوم حيد يسهل فيه كل سهيد وسهيد من أتاه الله رضي الله رضي رضا عنه ورضي عنه ربه ولكن كيف يعرف الإنسان أنه قد أتاه ربه إن الحاخل من يراجح صحيفة أحماله وأحواله ويسأل نفسه هل أزهدت أزهدت فقيرا هل أزهدت فقيرا هل أغزيت منهوفا هل واسيت منكوبا هل مسحت يدا على رأس يتيم هل خففت البلوى عن أرملة أو مسكين هل أحسنت إلى الجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب هل وصلت رحمة فإذا كان قد فعل ذلك فله أن يكون سعيدا حقا وإذا كان فعل ذلك فله أن يكون صحيحا حقا أما إذا لم يكن قد فعل شيئا من ذلك فعليه أن يصلح من نفسه حتى يستحق سعادة الحيد الله أكبر أيها الإخوة المؤمنون ما أسرقت شمس الحيد الميمون حيث يصبح المسلمون ويحجون إلى مساء مسا اللهم ويسجدون ولله والله يكبرون وعلى أنفسهم يسلمون ثم بالحيد يفرحون فإن الهيد فرحة مسروحة لأنها جزء من جزاء السائم بعد صيامه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه لكن يا أخي يا أخي المسلم ما أبهى بالفرحة بالهيد أهو تبل وزمر ورقص لا فالحيد ليس ليس ممارسة لسهوات خير المرية ووحدة الأمانة الإسلامية إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وقد ثبت أن الله أن الله البريء والهو والله الهادف محمودان بدلا بدليل ما روي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إن استمها لها النبي صلى الله عليه وسلم بمساعدة الحبس وهو وهم يمارسون الألهاب ولم تكن هذه الألهاب إلى اللحو بريئا ولحبا هادفا لأنهم كانوا يلحبون بالسلاح إن الإسلام لا يسمح بممارسة شيء يدفع المسلم إلى الانحراف عن جادة الطريق وهو منذ انتهاء الصيام الذي يهذب نفسه ويعلم التقوى يبدأ مع المسلم مرحلة إيمانية جديدة وهي رحلة الحج التي يبدأ الاستعداد لها من أول يوم في السوال يقول تعالى الحج أصل سميع مجيب أيها الإخوة المسلمون جئتم إلى المسجد من تاريخ وهودوا من تاريخ آخر بعد سماع الخطبة حتى تسلموا على أكبر عدد من إخوانكم المسلمين كما زن لكم نبيكم عليه الصلاة والسلام واعلموا أنكم إن شاء الله من الشهداء المقبولين لدى رب العالمين فهنيئا لكم أيها الإخوة المسلمون فهنيئا لكم أيها الإخوة المسلمون إذ نجحتم في امتحان صومكم وحصلتم على التقدير من ربكم وأخذتم جوائزكم وحصاري من الرسول بعد النجاة والكسل بعد النشاط والمعصية بعد الطاعة والتوبة لمن سام ستا من صوال بعد صيام رمضان إنه إذا إذا كمن صام العام كله فإذا تعود سالك في كل حامل وهو كمن صام الدهر كله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه بست من سوال كان كصيام الدهر فاللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وأحسن جزاءنا إنك أنت الغني الكريم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على السالمين بكي جلدي إنا بني سنت يا لجلي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نجلن دي نيو دي لن سيارة دي لن دوكيل تي بيس بماك بي دي بيسو كوريت دي بيس بو خمني فت لتي بولم جلدي يبتي عدو نبي ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli ci seyduna muhammad sallallahu alayhi wa moom mi nga xam ni mooy kado xiiwal bi ñu sunu borom jox muy làmp bu leer bi nga xamante ni nii moo leeral adduna di julli ak a ñaan ci ay saabaam yu weex yu set yu leer nañ yàlla bu yàlla dañ di julli ci ñoom ba kera bis mbokki jullit yi ñu ngi woon ci biir weeru mel ni ay malaaka topp nañu sunu borom ni ñu ko war toppe ci weeru koor ni malaaka yi toppe seen borom duñ ko moy ñu woor daal di taxaw bëccëg yi guddi yi ñu taxaw ko di jàng alquran di déglu waxi yàlla di tere sunu bopp ñam yi ñu dagan yu baax yu bànneex yépp ñu tere ko sunu bopp ngir topp yàlla ak sàkku yërmandeem sàkku ngërëmandeem loolu nag lépp ci weeru koor lañ ko doon def tey nag bisub texe la tey jii bisub texe la ci képp koo xam ni toppoon nga yàlla ci biir weer wi yàlla suñu boroom gënal ko waaye nag doomu aadama naka lay xamee ndax toppoon na boromam ci biir weeru koor wi foo jaar nga def ay question jëme ko sa bopp ndax nga mën a xam yow weer wi li ci waroon ndax def nga ko benn nga laaj ndax yow dimbali woon nga ci faqiir wala xeetli woon nga ci ko am problème ndax dimbali woon nga ci koo xam ni ay bor wala jaaxle àdduna moo ko daloon ndax yow jëlal nga sa loxo bi laal ci boppu jirim ci biir weer bi ndax yow day amoon na ko ami nga fexe ba oyofal ko ndax dimbali nga jigéen ju xam ne nii borom këram dafay jóge bàyyi ko ak um njaboot mu néew doole wala miskin ndax yow rafetal nga jëm ci say dëkkandoo ndax yow jox rafetal nga jëm sa dëkkandoo yi nga xam ni yéen a bokk diine wala yéen a bokk koñ bi wala yéen a bokk rek fu ngeen di liggéeyee yooyu yëpp ndax defoon nga ko ndax jokkon nga mbokk question yooyu boo ko laajee sa bopp soo fekkee def nga ko da nga xam ne yow de dëgg-dëgg yaa ngi ci fet gu neex yaa ngi yokku texe ngay doon waaye su la leeree ni yooyu ñu wax yépp defoo ci benn li la war mooy nga defaraat sa bopp ba nga xam ni loolu mooy li war nga mën a bokk ci ñi nga xam ni dañuy feetu dëgg-dëgg feet ndax feet tey lu baax la waaye day am lu ko jiitu mooy da ngay jëf ba bisu feet fay bi ñëw ko defee ñu fay la nga feetu ci li nga xam ni moom nga doon def ci weeru koor kon nag yéen julit yi yéen mbokk yi yi ñu ngi leen di xamal ni feet daal dañ ci doomu adama yi dañ ci bég dañ ci kontaan ci ni ko sariya daganale waaye nag kenn du ko defee ci ni la neexee rek képp koo xam ni nga ba dog xam nga ne yaa ci feet ndax dangaa nekkoon ci lu neex sa borom subhanahu wa taala moo tax yonent bi salaa salaam daañu wax ni aji woor de am na ñaari mbégte benn bi mooy su dogee dana kontaan beneen bi fu taseeg borom bu ëllëgee yàlla moo koy fay ndax yàlla nee na koor du ko jox kenn mooy may fayal man maa koy jël di ko fayal sama bopp sama jaam bi ko nag bokk yi feet du fecc feet du wol ay ah, mbiib feet du nekk ci tëgg ay ah, tëgguwaay waaye feet daal mooy nga taxoo sa bànneex yi nga xam ni yu dagan la yoo xamante ni doomu aadama lislaam yoonal na ko yàlla gërëm na ko yooyu daal mooy feet sallallahu alayhi wa sallam ba mu ñëwee madina ca gàddaay ga dafa fekk waa madina nga am ñaari bis yu ñuy feet mu laaj leen di leen bis yi lu tax ñu ni ñu nekkee ca jamono jaahiliya dañu daan feetu ñaari bis yi yonent bi sallallahu alayhi ni leen yàlla wooteel na leen ko yeneen ñaari bis muy feetu korite ak feetu tabaski kon nag bis bii ñu bari jullit yépp dañu te war a toiletu sol ci loo xam ni moo gën a rafet ci ñoom ci seeni yére waaye nag ñu bégal ñu fo ci fa moo xam ni fa mu lislaam daganal la ndax li yàlla ara dagganal kenn waru ko araamal daf araamalul fo yépp dafa am foo yoo xam ni daggan na ci jullit am na yoo xam ni nag araam na ci ak jullit léegi nag nañu siyaarante ci biir yu tedd yii kenn ku nekk nga gën a nuyu sa moroom xool ko bëtu cofeel ñu gën a doon bennoo ngir ngëm yàlla gi nga xam ni ak bennoo bi nga xam ni islaam moom la sàkku ci ñun kenn ku nekk feeñal ko ci sa moroom yoo xam ni xeet bi benn xeet rek la benn borom la ñu am ñun ñëpp ay jaamam lañu mu yàlla subhanahu wa taala yonent bi salaa salaam am na fa yoo xam ni moom day yomu dañ la yoo xam ni bokkul la yi nga xam ni moom la lislaam euh, santaane yi mu santaane nag mooy yi nga xam ni moom la ñu sant moom la ñu gërëm moo am ay tegtal tax soxna Aysa mos na koo tàggu di ko seetaanloo am ko mu yëkkati ko wala mu yabal ko mu dem ndax loolu ko mu dagan la waaye ko yi nga xam ni dafa araam moom daf ko daan texe daf ko daan tere daf ci daan deñ àndu ci woon moom sallallahu alayhi wa kon jullit duñ ko digal benn po moo xam ne nii day dàq ak gëm yàllaam day dàq ak jaamu yàllaam waaye dañ koy tere lépp loo xamante ni nii daf koy taxa a jeng jëm ci ay caaxaan weeru koor nag bu jeexee weer bi nga xam ni day yar bakken di jàngale ragal yàlla weer la woo xam ni bu jeexee ci la beneen étape di tàmbali mooy aj màkk xam ngeen ni jullit amul benn jamono bu muy féex wala bu muy liibar bu mu nekkul ci jaamu yàlla bu koor gi jeexee aj màkkaa ngi ñëw ñu koy waajal ku ko man yàlla dimbali la nga am paas ak yóbbal yàlla yóbbu la yàlla yàlla dimbali julli yëpp ba ñu dem màkkatal mu karam yàlla yombal leen lépp xam ngeen ne aj yi at yëpp aj màkk amul ak jafe-jafe yàlla yal na dàq jafe-jafe yooyu nga xamante nii moo teewoon yi di dem ci seen rendez-vous réy boobu di màkkatal mu karam kon nag fi mu toll dañuy dem muy ci woote yàlla boobu nga xam ni keroog ba korite ñëwee weeru sawal dugg ci la waaj màkk tàmbali ba kere ñuy dem màkk ci ñetti weer yi nga xam ni moom la borom bi subhanahu wa taala digal ni ci la ñuy def aj màkk ndax aj màkk du jamono bu la neexee rek nga dem dafa am ay waxtu yuñ ko jagleel ay weer yoo xam ni boo fa demul màkk foofu mën a nekk ñu ko tuddee aj màkk kon nag yal na yàlla barkeel suñu koor yal na yàlla barkeel suñu koor yal na yàlla barkeel suñu bis bii yal na yàlla barkeel te wuñ bu nungul ñu lépp luñ ko ñaan ci bis bii way feebar yi yal na yàlla jéggal leen way tukki yi yal na ñu yàlla dimbali leen ba ñu dellu siwaat borom njaboot yal na yàlla dimbali leen ba ñu jubóog seen njaboot man leen a teg ci siraatal mustaqim mi nga xam ne ñooy kilifa diine yi yal na yàlla sàmm leen te aar leen kilifa yi réew mi yal na yàlla sàmm leen te aar leen te teg leen ci siraatal mustaqim ba seen yitte yëpp di liy jariñ askan wi mbokk yi ñu génn ñu góorgóorlu ci benn la kàddu yi benn la xol yi te moytu féewaloo ak dugg ci suñu yoon nekkul nañu yéenante jàmm nga xam ni jullit jàmm rek moo ko jig te ñu bàyyi fuutalante bi ak weddante bi ak xastalan xaste bi ak tuutal sa mbokku jullit wala sa mbokkum dëkkandoo kum ci mën a doon nañu moytandiku loolu suñu réew mi wuute yi bari na lool te wuute yi bari su fekkee waajal nañ ko mën naa bañ a yàq dara waaye suñ ko waajalul dafay yàq lu bari ci réew mi te xam ngeen ni réew mi li muy léegi am na yuy xew dañ ko war a waajal ba lu mu bari bari du mën a yàq dara gis ngeen télé yi ni mu bare te waaye ña cay wax war nañ leen a waajal ba ñoom ñëpp ñuy wax luy defar luy bennle nit ñi luy boole doomu aadama yi luy moytandiku safaan ndax bu ñu demee ba tarixa bu nekk am say télé giir gu nekk bëgg am sa télé famille bu nekk bëgg am sa télé am sa rajo dootuñu doon benn kii di wax fee kee di weddi fee te waajaluñu ñoo ñuy wax ci rajo yeeg télé yi loolu mën naa andi musiba ci am réew kon nag télé baax na rajo baax na yooyu yëpp waaye ña fay wax nañ leen waajal ba ñu xam ni bépp baat boo wax des na la ko laaj bu yow mal xiyaamee rawatina nag baat boo xam ne safaan la kon kuy dem bay wax na ngay wax luy boole jullit yi luy benn la jullit yi loo xamante ni nii day andi jàmm ci réew mi waaye indi ko ci àdduna bi waaye tàqalikoo gi bari na lool kii ne du ma seetaan tele bële ndax ñoom diw la kii ni du ma déglu rajo sàngam ndax ñoom diw fay wax kii ni xeet sàngam ñoo moom rajo sàngam xeet sàngam ñoo moom télé sàngam loolu ma ni baaxul ci réew su fekkente ni waajaluñu ña ko yor matériel boobu ba nga xam ni la tur yi mën naa wuute waaye hëdëf bi bëgg-bëgg bi seen jubluwaay lépp mooy yee doomu aadama yi jële leen ci lëndëm yóbbu leen ci leer loolu dañ ci bàyyi xel bu baax ndax taxalikoo bi wuute bi yépp mën naa nekk yërmande waaye suñ ko defee arme nag di ko xeexe danañu lor lor suñu njaboot te loolu dara jëru ko kon yal na yàlla dimbali suñu réew dimbali ñu ci ñàkk musal ñu ci ñàkk ak musiba yal na yàlla kay xeex xeex ba nga xam ni ma ngay am ca Palestine suñu mbokki jullit yooyu ñuy sonal Yalla yalla dimbali len bañu ñu sen bop nek ci jàmm tala jamu sen borom ku ay am ci aduna rek yalla ko borom subhanahu wa taala fay muy ci Ukraine muy ci muy ci Yaman muy ci fu meuna yalla ci aduna yalla mi nga xamni moy wolba ci bir yalla na ci bir yeb ba ñepp nek ci jàmm tala liggey tala jamu yalla tala jang tala meuna xalaat lan moy doxal suñu aduna ñoo ngi sant ñepp di gëreem ñepp di ñaanal ñepp tawfiq ak taysir ak najaa di baal ak ñëpp di balu ak ñëpp di ñaan yàlla julli yi yàlla bu mu nekk suñ mujj julli ñi ko fekke woon daaw te fekke wuñ ko ren yal yàlla yërëm leen jéggal leen xaral leen àjjana ñi ko fekke ren te taluñu ko yàlla nañu jóg ak jàmm te wér te delluwaat ci seen yitte ñi ko fekkee tal ko man ko xam ko defe ko ni ko yàlla bëggee yal na yàlla fay leen te yàlla bu mu nekk seen mujj julli asaw billahi tawfiq wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu المقارنة الأبواب يا أبي الأرواح اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبنينا عن مقارنة الأبواب يا أبي الأرواح اللهم صل على سيدنا محمد صلاة عبد القلب جدته ورسول الله وسيلته وأنت ولكل كرب حسن فرد بسم الله الرحمن الرحيم بحرمة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.